laal li ma xam mooy jën bi génn na jënd naa ko am na ku may envoyé nii ay jën ak ay sëdd affaire yooyu nii nii <laughs> te mën na ko waaw man loolu laa xam man jënd bi laa ci xam jënd laa ci xam cher na laa ci xam pourquoi mu cher xaw ma ko pourquoi sénégalais yi di jooy di wax tout le temps que ni mënuñu napp am na foo xam ne mënuñu fa yegg être bateau étranger yi ñoom ñooy jël yenn affaire yi on a publié la la liste liste bi aussi ñu ne am na des prête-noms. Mhm. donc c'est quoi le problème exactement. Euh, c'est vrai que ce questionnement bi nga soulevé ça prend en compte plusieurs préoccupations. Mhm. de l'heure euh, mais si lépp rek mën nañu ko tënk ci aspect socio-économique man damay préférer di jiital euh, aspect social bi. Mhm. parce que l'humain est au centre d'abord au cœur de tout avant ñuy aspirer à une quelconque retombée économique donc tey booy xool contexte bi nu mu mel. Tey, on dit qu'au Sénégal, statistiquement parlant, la pêche occupe du PIB, dans la place du PIB. Ça veut dire quoi? Ça a un chiffre d'affaires qui atteint presque 258 milliards. Mmh. Ce n'est pas rien. Mm-hmm. Comme nu ko doyen waxee sànq, c'est un vecteur très important pour le mm-hmm. développement du pays. Mm-hmm. Parce que ñun suñu sacerdoce waa aar mooy nañ fexe ba napp dundee dundal napp gi. donc loolu faw ñu awale ko. ci acteurs principaux te tey ce qu'on a tendance à faire mais génne ay convention génne ay code mais est-ce que réellement dëppoo na ak ñun suñuy réalité parce que réalité bi fu muy commencer mooy au bas de l'échelle entre guillemets Mm-hmm. boo leen ma permettre terme il y a cette mm-hmm. pêche de proximité qu'on appelle la pêche artisanale et qui n'est pas des moindres parce que pêche boobu la ñuy sukkandiku ñun tey pour dundal askan wi mm-hmm. pêche boobu la ñuy sukkandiku tey pour ñu bëri une frange de la population mën a faj seen soxla donc loolu je pense que c'est un euh, c'est un point très important à prendre en compte di euh, di profiter aussi occasion bi pour nuyu waa CLPA bi c'est le comité de pêche locale et artisanale. on les a reçus une fois ici. voilà ñoom ñu ngi def liggéey bu mucc ay ci wàll boobu. macha allah mm-hmm. mm-hmm. kon euh, bu ma jaaree si turu Bokar ak ñoom Baye Sow ak nuyu naa ñëpp. Mm-hmm. donc euh, tout ça pour dire que les quarante quarante pour cent. n'est-ce pas qu'occupe la pêche artisanale ñoom dañu si gisul seen bopp. léegi nag lu tax gisuñu si seen bopp. mooy lii nga wax ni nga soulever comme problème. Mm-hmm. mais la nécessité de réviser les codes. Et que ce qui est révisable, qu'est-ce pas révisable Parce que y a des conventions qu'on a mm-hmm. signées. Une convention, c'est international. Ça, euh, respecte des normes. Mm-hmm. loolu euh, si yeneen audience obédience wala yeneen station lañ koy mën a négocier parce que loolu dem ba ratifier signé ko pour ay dizaine d'années wala voir parfois un euh, un quinquennat du loo xam ne da nga siy dellu siwaat nii parce que ñu bëri nga ko bokkal soit espace UEMOA bi nga ko hmm. bokkal wala un euh, un espace plus large n'est-ce pas un espace mondial donc dafa am ay convention yoo xam ne c'est pas du tic au tac indi ay mesures correctives mais par contre lii nga xam ne ça nous est propre le hmm. code nest pas notre code de la pêche loolu am na loo xam ne war nañ si mën a réviser ay articles Mhm. Parce que quand tu prends par exemple au niveau de la constitution même du Sénégal, on te dit que par rapport à la pêche, es, euh, toutes les personnes qui sont censées pêcher au Sénégal doivent avoir une licence. Mhm. Une licence de pêche. Mais quel est le contenu de, de cet article C'est quoi une licence d'abord à qui doit-on l'attribuer, quelles sont les catégories de licences. Donc mm -hmm. tout ça, ce sont des euh, questions auxquelles les réponses sont là, parce que nous savons que si c'est par rapport à la pêche artisanale, nous avons trois types de, de licences, B, C. Euh, dépendamment de la taille des embarcations, qui, font, qui peuvent être une petite embarcation de moins de 10 mètres, 15 mètres et plus de mètres, n'est-ce pas bu boobaa licence bi am ko jafewul da ngay dem fay 5 bu boobaa nga mën a exercer. maintenant à un autre niveau plus élevé mooy je m'en vais répondre à votre question mooy maintenant il y a des licences qu'on doit donner à des embarcations de taille plus importante c'est-à-dire les navires de pêche comme les chalutiers les mm. rougeetiers les thoniers et autres mmh. qui font près de 1500 mètres cubes ñoom lu ñuy engranger sur ressources halieutiques c'est considérable donc ñooñu bu boobaa ñoom lu ñuy def dañu inscrire au niveau de l'autorité maritaime ça peut être la euh, le ministère de tutelle ou bien la direction des pêches hmm. ñoom ñu octroyé ko benn licence léegi nag bu ñu ko joxee licence boobu moom lu mu amee Sénégal hmm. mooy ay redevance hmm. si li muy pêche bu boobaa mu mën a fay redevance l'octroi des licences c'est un problème comme ça peut ne pas l'être parce que on a une visibilité sur ce qui se fait. l'autorité képp koo xam ne dafay ñëw pour am licence de pêche dafay am benn registre boo xam ne dañ lay si bind donc bu boobaa ñun mën neen xam kan la ñu octroyé euh, euh, licence bi est-ce que c'est un euh, IBA pavillon sénégalais ou pavillon étranger okay. donc je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau mmh. et pourquoi le président veut auditer le pavillon sénégalais bonne chose que de vouloir auditer le pavillon sénégalais mmh. mais qu'est-ce par pavillon sénégalais qu'est-ce qu'on entend par cette dénomination est-ce les navires que on a enregistrés qui sont censés battre pavillon sénégalais même s'ils viennent d'Asie mm -hmm. d'Europe ou d'Afrique donc je pense que le contenu c'est pas ça réellement la problématique il faut la considérer autrement okay. c'est-à-dire aujourd'hui euh, le gouvernement sortant déclarait qu'il y avait 120 navires mm -hmm. auxquels on avait octroyé une licence de pêche, sans compter les navires fantômes. Aujourd'hui, nous sommes rendus à une déclaration officielle de Le geste, la, le process, il est louable. Mhm. Mais maintenant, in fine, qu'est-ce qu à quoi on s'attend Parce que tu as 150 navires de pêche. nga ne leen jox naa leen licence mhm. mais c'est nous sommes ñoom ñu ngi wooye jubal jub jubal jubanti on est censé savoir le contenu de ce qui a été ratifié mhm. man mën naa la jox tey permis de conduire ma ne la demal defal Dakar Touba mais waxuma la ñaata yoon ngay def Dakar Touba. Mm-hmm. waxuma la ñaata personne ngay embarqué. Mm-hmm. donc qu'est-ce à dire si on transpose ça à notre contexte la licence de pêche tu la donnes à des navires à quelle catégorie de navires on a donné 150 licences. licence de mm-hmm. pêche. tu n'est-ce pas donc il faudrait savoir est-ce que ñoom lan lañ leen autorisé ñu nag est-ce que ay pélagique la est-ce que ay démersal la est-ce que ay euh, nu mu tuddati ay thonier la quelle espèce. ak à quelle fréquence après bu boobaa ñu mën a xam yan redevance la ñuy joxe montant redevance bi ñu mën ko justifier est-ce que sénégalais yi bu boobaa dinañ si gis seen bopp donc je pense que il faut savoir d'abord le contenu, le il faut les exposer que le public les ayant droit mmh. sache qu'est-ce qu'il en est mmh. pas pour seulement avoir un droit de regard parce que euh, ku ñu dem ba élire à 53 pour cent mm. c'est que nous sommes républicains mmh. nous sommes démocrates kon fas yéene nañ la jàppale mm-hmm. nest pas parce que dañu bëggal Sénégal jëm kanam gaal boo si nekkee da ngay ñaan mu mucc waaw donc qu'est-ce à dire hmm. mooy tey nunu wax cent cinquante navires de cinquante trois navires de pêche yi hmm. lan mooy seen vocation hmm. et puis bonne fréquence aussi la ñuy muyee si suñu eau territoriale ah, ah. bu dee c'est des navires parce que aujourd'hui tey benn navire boo xam ne il bat pavillon je prends le premier nom ki me vient à la tête il bat pavillon chinois nga bàyyi ko mu muyee suñu eau cent fois ça veut dire une fois par trois jours mi ngi génn mi ngi dugg di napp quantité bu muy napp est-ce que c'est tolérable mmh. donc loolu je pense que il faut ñu sensibiliser population bi communiquer ak ñoom rassurer leen de telle sorte ku nekk dina ne ah li fi amoon dootul amati on parle d'audit mmh. l'audit c'est bien est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs mmh. qu'est-ce qui nous oblige nous aujourd'hui à octroyer 150 licence, licence de pêche. Mm -hmm. Pourquoi ne pas faire un audit, ne pas confondre vitesse et précipitation, mhm. faire un audit, xool quelle est la situation actuelle, qui est méritant, qui n'est pas méritant, à moins que mhm. ça a été pris en compte en amont. Mm-hmm. parce que tey kii ñu fi teg euh, madame euh, Diouf vous êtes censé savoir que elle est du sérail peut-être qu'elle a déjà eu à faire ce travail en amont et si mm-hmm. elle l'a fait on lui adresse une félicitation mm-hmm. si l'équipe précédente l'a fait aussi l'état est en une continuité donc mën nañ sukkandiku si lool ne population bi ñun amoon na liggéey bu ñu def en amont tey lii la si génn donc on pense que ñii ce sont des ayants droit les 150 ou 153 licences de pêche qu'on octroie maintenant voici les Parce que y en a qu'on écarté. Mhm. Il y qui sont en instance de renouvellement. Mhm. léegi bu boobaa ku nekk dina xam ci yan critère la ñu attribuer cent cinquante yi mhm. ëllëg ak si biir képp koo xam ne da nga bëgg a souscrire di nga ne critères yaa ngi ne